5M TV Sénégal chaîne bi leen di jox xibaar yi leen ci anam yu wér ci wóor. décision yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko amul benn nguur. bu ko mës a jël ci Sénégal. mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak euh, jàmm ci xibaar journaliste bi di Pape Alé Niang daan nay àddu jëmee ci la nga xam ne rek moo di ndogal gi nga xam ne nguur daan na koy jël rek dakkal lépp loo xam ne rek moo di dem bi ak dikk bi fa nga xam ne rek moo di ca diwaanu Ziguinchor ka nga xam ne rek moo di Pape Alé Niang di wax ne rek lii moom mësu fi am benn yoon dogal gi nga xam ne rek état daan koy jël nag dakkal lépp loo xam ne rek. rek moo di dem beeg euh, dikk bi fa xam ne rek moo di ca Casamance yenn euh, oto yi nga xam ne sax moo daan dem fa nga xam ne rek moo di ca Casamance dañu leen daal di arrêté dakkal seen ab dem ak seen yenn oto yoo xam ne rek moo fay daal di dem te sax paas yi dañ ko daal di yokku seen boto bi itam dematul euh, dikkul loolee Pape Alé Niang moo ko daal di xamle di wax ne rek la ko waral rek moo di benn nit mu di Ousmane Sonko mi nga xam ne jamono ji sax ma nga foofee nga xam ne rek moo di seeta kër góor gi ñu bari la nga xam ne rek moo di këram mënul dem mënul dikk Pape Alé Niang nag di wax ne loolee jaaduwul benn yoon dakkal bi nga xam ne état daan na koy dakkal dem bek dikk bi fa nga xam ne rek moo di ca Casamance sax day mel ni waa Casamance da leen daal di bot di fële te ci Sénégal la ñu daal di bokk Pape Alé Niang moo xam ne kaddu yu ni mel